Euh, asalaamaaleykum mbokk yi jaay ngeen jëf ci fasante ko lore gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré kër ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan euh, juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar. Euh, li ci gën fës euh, mooy la xew ca Guinée seeni kuréel gi yore wàllu nag élection yi euh, daal nay jox résultat provisoire bi kii di nag président sortant bi di Alpha Condé mu daal di nag wutu boppam mbir moomu nag ña fare ak selu dalan Diallo moom la ñu daal di nag ñaawlu manifester yi e, mel ni tulleeg màlle foofu ca Guinée Conakry dinañ ci daal di nag jukki ni ñu ko suñu naataango e, ba ñu fa teewal daal di nag waxee dinañ ko jukki def ko ponk wax sa xalaat e, situation ba Guinée ak na muy alawtikoo réew yi fare nag l'Afrique njàngat li euh, doomu Guinée yi nga xam ne itam ñu ngi fare fii ci euh, Sénégal daanaka seen xel nag dalatul ndax jógee daal di ragal guerre civile daal di nag tàbbi ca barab boobu CEDEAO ak Union euh, africaine daanaka seeni rôle ne ñu joué wuñu ko bokk na ci li waral crise bi lee loolu la ñu xam ne dinañ ci daal di nag jukki Guinée bi nekk ci impasse jamono jile kenn waralu ko lu dul président ba daal di nag soppi li nga xam ne mooy charte ndeyu réew ma njàngatu professeur Moussa Diaw la di ngeen ko daal di teelu mooy doon itam suñu ganu xibaar yi ah, ci kanam tuuti dinañ <laughs> ci daal di àddu def ko ponk ci wax sa xalaat li yees ci mbirum terme sud ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille yi ñu génne woon ah, ci seen dëkkuwaay dalal nañ leen ca palais de la république ku ci ne dinga nga am fukki million ngir daal di nag wut beneen dalukaay ah, aju fàttu bari dina ci daal di dellu siwaat solution boobu njiit réew mi daal di nag jël dinañ ko defit ponk wax sa xalaat jeexale ko ak feebar mbas mi tey jile lu war a toll ci kenn ku daal di nag uh, faatu ñaar fukk ak juróom-juróom ñi daal di amee feebar bi ñu bees ne ñu nag fukk ak ñett yi ay. nag transmission communautaire la cas importé yi ba tey dakkagul juróomi nit daal nañ ko cay wan le euh, docteur Mamadou Ndiaye dina ci daal di nag dellu si njàng meek njàngale mi programme scolaire bi ñu jàpp ne nag dafa màgget ba xob bi daas faaw ñu daal di koy méngale ak jamono waa sayam sa mbir moomu daal nañ koy rek nangu waaye itam dafa war a am fañ ko daal di nag jaare bu ñu sukkandikoo euh, ci inspecteur bi yëngu nag euh, ci wàllu éducation di Ndéné Waror dinañ ko teewlu toftal ci yeneen xibaar laata ñuy dalal ganu bés bi ubbi antenne bi ci wax sax xalaat lay doon Assane Diouf moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione. Euh, ci kàddu gi mbokk yi ni ñu leen ko waxee ci bopp xibaar yi mooy nag résultat yi nga xam ne jëm na ca Guinée te commission euh, électoral indépendant euh, ba daal di koy nag siiwal nee nañu daal kii di alfa kii di Alpha Condé moom moo daal di nag jiitu Cellou Dalein Diallo daal di nag ñaawlu résultat yi nii mel jàpp ne mbir moome mu ngi cay jokkal bi baaram waa CEDEAO ñu gis ne ñoo nekk ci ginnaaw mbir moomu manifester yu tar nag daal di am foofa ca ca diwaanu nag Guinée ñi di woy takk der yi di jàppante nag ak askan wa ay ndaw yu opposition bi ñoo daal di nag wàcc ci mbedd mi ba tax nag victoire boobu ñu daal di jox Alpha Condé la ñu ne duñ ko nangu benn yoon ay jàppante ay pën yu ñuy daal di nag lakk ay yàqu-yàqu yu ñuy daal di rek nemmeeku ca capital ba Amadou Wuri Diallo Amadou Wuri Bari euh, dina ci dellu siwaat ci xibaaru euh, tubaab bi te lañuy desandi ak ña ca daal di faatu ca Guinée ñu bari am ci ay gaañu gaañu te ji euh, ci suba jàpp réewum Guinée bi nekk fii ci euh, Sénégal nag di àddu ci mbir moomu la ñu daal di nag gis wala askanu Guinée mi ne Sénégal ne ñu daal dañuy ragal guerre civile daal di am seen réew joxar bi nañu nag baaraam kuréel yooyu yooyu réewu l'Afrique di CEDEAO ak Union africaine mi ñuy jàpp ne taxawaay bu ñu waree an amee ci crise bi amuñu ko moo waral Guinée daal di tàbbi ci bile musiba Aïssatou Gueye Ba ay jaamarloo diggante ndaw opposant yi ak lii di takk der yi nekk foofee eh, ca Guinée boole ci itam takk der yu daal di rek wër eh, lii di këru opposant boobe ñuy wax eh, Cellou dala Diallo ay mbir yu bari yu daal di rek menacé lii di stabilité dëkk boobee ñuy wax Guinée Conakry waaye mu mel ni nag mbir yi yegseegul dafay door a door Guinée yee ñu dëkk fii ci Sénégal tiit loolu ci li nar a xew si seen dëkk. parce que yaakaar na mbiri guerre civile la nar a andi. Ah, man man loolu laa gis. et loolu lay am tamit entièrement ku ku kenn ne nee na nee na kenn moo koy gañe ah Alpha Condé gagné na. Mm-hmm. commencé na indi guerre civile parce que moom moo créé indi affaire ethnie si réew parce que loolu yoon la loolu nekkul yoon en tant que professeur. entre problème ethnie d'abord. problème bu mag la foofu en ce moment tu vois. Mhm. parce que gars actuellement nii nii nii ma lay fu ma lay waxee yoon yi. Mhm. ak Kankan wala am na yenn ville foofu. gars yi ñu ngi accroché ñu ngi attaqué ñu ngi si attaqué au pôle tu vois. Mhm. en plus la capitale aussi gars yi mooy loolu lépp a jaxasoo quoi. résultat partiel premier tour yi commission électorale nationale indépendante daal di joxe yokk karaw ci xar mi bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu dajal CEDEAO ak Union africaine dugal bi ñu dugal seen loxo ci mbir moomee nag dalul seen xel benn yoon. voilà la CENI crée des problèmes tu vois l'avenir de la Guinée est dans les mains de la CENI actuellement je peux dire parce que les résultats donnés hier c'est-à-dire c'est créer des problèmes les gens même en Guinée les, la population même sait que c'est l'UFDG qui a je pense que... Ça ne par la réalité. exactement. Et on a, on a vécu ça en 2010, en 2015. Maintenant, c'est trop, c'est trop, tu Actuellement, on ne peut pas, on ne pourra pas accepter ça. ci loolu yëpp nag lan mooy pexe ngir dakkal coow li am foofee ca Guinée Conakry. instant nii lenn rek moo ko mën a moo ko mën a bañ a xaar yu am moom li ñu ko xam mu jox euh, résultat bi seetlu da leen jàll parce que moom moo koy gagné les moom moo koy gagné vote boo ko xoolee bu vote bi moom moo koy gagné waaw man loolu laa la mën ñun daal di nag seetlu ay tension post électorale euh, fële ca Guinée waaye guinéen yi dëkk fii ci Sénégal di ragal mbir yi ëpp leen loxo loolu yëpp nag daal di am te résultat officiel yi jëm ci kan moo gagné li di élection présidentielle yi kii di commission électorale nationale indépendante génne gu ko sax euh, Guinée googu nekk ci nag ab guutal fa konde moo waral li ni mel moom mi daal di soppi constitution ba ngir daal nag euh, des pouvoir ba jàngalekat gi di gëstu ci wàllu science politique euh, xam-xam màcc ci jëflante euh, relation internationale euh, di def jàngat bi ni mel professeur Moussa Diaw ñu déglu ko ak El Hadj Malick Ndiaye Alpha Condé gis nañu nu mu nu mu taxawee bëggul bëggul quitter pouvoir bi bëggu fi jógee loolu nag problème la moo tax mu modifier constitution bi pour pour toog ni day organiser élection yi euh, daal di créer institution nommé ñu nga xam ne ñoo yore ñoo yore processus électoral bi euh, situation bi Guinée yi wote nañu mais dafa wane ni crise am na crise bu mag mooy am ci Guinée su fekkee Alpha Condé delluwul gannaaw parce que li nii mu agiré rek logique la logique yi mooy moom moo yore moyens yi moo moyen de moyen de répression moom moom moo yore moo di moo contrôler processus bi et résultat bu ko neex lay génne loolu nag problème la loo problème si si si si transition démocratique yu am yi en Afrique parce que du ñu reconnaître am benn amul benn consensus si si processus électoral bi amul benn consensus pour respecter ça dañu joxe ay ay gage ne résultat bu génn daañu ko respecter te élection yi daañu ko daañu ko dérouler daañu ko dérouler dans de bonnes condition c'est-à-dire mu leer ni ñu koy doxalee et puis résultat yi ñuy génn yi mooy résultat yi nga xam ne moo jóge ci urne yi waaye du résultat yi ñuy falsifier mais gis nañu ni nag Alpha Condé euh, ma ngi dox ma ngi ma ngi ci beneen logique te ni mu day d'ailleurs frontière ak Sénégal wane ne ni moom nanguwul du nangu résultat yi génn ci urne yi te lii crise lay indi crise bu mag lay indi te crise yooyu moo amoon Côte d'Ivoire ci affaire xëccoo électo euh, élection d'ailleurs la plupart ci pays africains yi euh, xeex crise su amee raison yi ci bare source bi politique lay doon élection yi ñu contesté ak situation euh, rapport de force entre candidats yi nga xam ne ñooy xëccoo élection yi loolu moo am Guinée situation boobu nag doy na waar te suñ ko waxul ah dina dina dina indi jafe-jafe yi surtout population bi ñoom ñooy souffrir ñoom ñooy souffrir ci situation bi te crise bi crise bu métti lay doon suñ ci waxul léegi jog ci euh, mën a jéem ko saafara euh, euh, ma yaakaar ne nag kooku défi ba Afrique war a relever défi la d'ailleurs bu bu organisation régionale comme o wala Union africaine wala wala wala war a mais nag loolu mu ngi dépendre ci seen seen capacité ak moyen ay ñoman euh, utiliser pour mën a def pression ci Alpha Condé mais yaakaar ni lool pour def ci moom pression période bi mu nekk niruwul ku nga xam ni euh, dina nangu euh, résultat yu nga xam ni jóge na ci urne yi. Sud FM. lu bees ci mbirum nag terme sud ak famille yooyu ñu jële woon ci seeni nag dëkkuwaay daal nañ leen dalal ci audience foofu ca palais de la république ku nekk ci ñoom daal di nga daal di jot lu war a toll ci fukki million eh, ngir nga daldi di nekk am dëkkuwaay loolu kii di Guy Marius Sagna daan na koy fësal bokk ci collectif doy na eh, ñoom amal nañu ndajeek taskatu xibaar yi tey jii li am na yeneen jafe-jafe itam ci wàllu eh, coowal suuf yi nga xam ne àddu nañ ci aji faatu bari gannaaw ay ayubés yoo xam ne ñu ngi doon xaar waaye itam di wéyal seen xeex juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent njaboot yi doon yeewoo ca Terme Sud fi mu toll nii mën nañu dundee yaakaar ndax li liñ doon wut daanaka am nañ ko. palais présidentiel recevoir na leen wax na leen pour la première fois officiellement li nga xam ne ay fan a ngi ñu ngi ko doon wax ci média yi te waxuñu ko waxuñu ko woon euh, waa waa Terme Sud ne leen famille bu nekk dinañ leen jox dix millions. doy na demoon bay bàkku waaye mel ni beneen xeex mu ngi leen di xaar ndaxte juróom benn nit yi bokk ci collectif ñi nga xam te ne ñoo doon yeewoo ci Tivaouane Peulh te ñu tojoon seeni kër ñooñu dañ leen teg loxo ajjuma bi ñu génn gannaaw bañ doon amal benn manifestation bu ñu teree waral ba sax giimar yu Sagna di nettali mbir mi nañu libéré Abibatou Ndiaye nañu libéré Gora Ba nañu libéré Adjuma Diallo nañu libéré Baysal Seck nañu libéré Modou Faye foofu du seen place kaso camp pénal place ñi nga xam ne ñooy sàcc suñu suuf. yeneen nit yu ñuy laaj ñu bàyyi leen moo di ndaw ya doon yeewoo ca ñàkk gis te nga xam ne dañ doon ñaawlu ni ñu doon jaxat jaxatee seeni suufu gox boobu. Henri Ndeki Benoît Sidja Moto Diatta Idrissa Sané ak Abdou Diémé ñi nga xam ne. ñoom lu ëpp ñetti weer a ngi ñu ngi ci biir kaso Ziguinchor ndaxte ñoo doon xeex maire bu ñaa gis mu caxat caxatee suufu commune Niaguis doy naa di artu te yëgal ñi nga xam te ne ñoo di nguur gi ne nañu bàyyi xel ni ñuy jaxat jaxate suuf si ndaxte loolu moo fi indi woon xeex ma ca Casamance doy naa ne xeex bi du fa yem ndaxte dinañ amal ay manifestation war ko amal ci Tivaouane Peulh Ndakaar waaye itam Ziguinchor lépp rek ngir laaj suuf si nañ ko bàyyeel ak askan wi baatu bari dina bokk ci bonk wax sa xalaat li aju ci wàllu mbas mi ñu daal di ci nag jukki diggante démb ak tey kenn faatu na ca ñaar fukk ak juróom ñoo daal di wàllante ñu bees fukk ak ñaar eh, di transmission communautaire ak juróom yu bàyyi ko nag eh, bitim réew eh, situation bés bi directeur prévention di ci dellu soir docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ñu déglu ko. ci junni fukki test yi ñu def ñaar fukk ak juróom ci positif ci positif yooyu am nañ ci.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 kawlax am ci benn Kër Mbay Fall am ci benn Mbour am benn Ouest Foire am benn Point E am benn Richard Toll am ci benn Scat Urbam am benn ak Yoff am ci benn juróom fukk ak ñett si maladi yi ñu entré woon hôpital wér nañu bës nikki ki tey dinañu génn bu ci yàlla juróomi malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alarba ñaar fukki fan ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak ñeent ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana te ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm Euh, ñu daal di nag euh, dikk ak njàng meek njàngale mi ak programme bi nga xam ne nag euh, léegi ñu door koy ubbi teg l'école gi acteurs ko siq nag moom wàllu éducation gis ne daal programme bi lu ñu war rek xoolaat la loolu waa SAEMS e daal nañ koy rek nangu ñoom ñi gis ne nag programme bi ñu teg jamono jile daanaka jamono daf ko daldi di nag dépassé màggat na ba xob yi daas ñu daal di méngale njàngub jamono jile ak li nga xam ne mooy doxalinu nag àdduna secrétaire secrétaire général bu syndicat bi di SAEMS di Saourou Sène di wax ni daal faaw ñu daal di ci amal ab ndaje bu gën yaatu ñu déglu ko Babacar Samb. ñëpp d'accord nañ ni tey euh, programme yi nga xam ne dañ koy jàngale ci l'école yi mais def ci am lu bëri loo xam ne je crois que war nañ ko changé changé ko pour réadapter ko ci contexte bi ñu nekk ni xool exactement besoin xale yi besoin société bi besoin de développement yi Euh, dans tous les secteurs mais yan la laaj ci jumtuwaay ci mbiru njàng je crois que loolu amuñu amatuñu beneen possibilité lu dul changé loolu du caagan nag dañuy jël programme bi rek ne léegi dafa guddoon nañu jël parti yi dindi ko li des ñu jàngale ko déedéet ñun jàppee wuñ ko noonu nuñ ko jàppee mooy nañu xool globalement le programme lan lañ ci war a réviser lan la xale bi soxla lan la askan wi soxla ci mbiru njàng lan la réew mi soxla mais ñu réadapté programme yi ci loolu bu ko defee yu bëri yoo xam ne tey dañ ko dépassé dafa obsolète mais ñu mën ko dindi je crois que loolu buñ ko defee rek dañuy daal di épouser la nouvelle la bonne dynamique loolu la Ah, ci la ñuy daal di desandi ngir rek ñu daal di woyofal programme boobu faaw nag ñu daal di topp ah, yenn xeetu nag logique yi am fuñ ko daal di jaarale loolooy tax mu jàppandal bu ñu sukkandikoo ci inspecteur ci wàllu nag éducation bi di Maurice Ndene Waror ñu déglu ko ba tey ak Babacar Samb. waaw d'accord naa ci te ñu bëri ci jàngalekat yi d'accord nañ ci mais nag nan lañ koy defee ak lan la ñuy wàññi lan la ñuy yokk wala lan la ñuy lan la ñuy dindi loolu mooy année scolaire bi octobre lay dóor dem juin te souvent octobre ak novembre xale yi duñu ko jàng suñ ko jàngul programme bi du jeex c'est pas parce que programme bi at at bu ne du jeex dañu war a wàññi programme yi c'est vrai na ay discipline yoo xam ne il faut que ñu wàññi programme bi parce que dafa gudd man professeur d'histoire géographie la xam naa ne am na ci histoire loo xam ne mën nañ ko wàññi te du lor njàngale bi ci géographie am na xam ne mën nañ koo dindi mais du lor njàngale bi mais nag même su dee par exemple xale bi gisu ko sixième wala gisu ko cinquième war na ko gisi quatrième gisi ko troisième te peut ko bañ a xootal ci sixième cinquième loolu yëpp ci wañu bi la bokk mais nag wañu programme du noonu rek noonu lañ koy defee par exemple en pleine année scolaire ñu ne dañuy wañu programme bi non parce que bac bi sujet yi ñuy jël par exemple dès le mois de juin ba dimanche dès le mois de octobre novembre décembre propose dañu commencé proposer ay programme ay ay sujet de bac léegi suñu ko proposé waa office du bac jël ko vers mois de mars ñu dem ba avril mai ñu ne dañu wàññi programme yi fekk am na lu ñuy proposé woon yoo xam ne loolu wàññi nañ ko ci programme bi loolooy tax nag ah indi ay jafe-jafe ren am na ñu doon wax ne comme mars lañu ci njàngale taxaw léegi programme bi lu ñuy jox ci brevet wala ci bac wala ci certificat alors du ñu jom du ñu joxe ci leçon yoo xam ne ñoo mujj parce que xale ñu ko gis am na ñu koy wax parce que su dee par programme bi jeexul ñu joxe ci leçon yu mujj yu mujj yi am na xale yi ñoo xam ne seen programme jeexul dañ ko mën a def xam naa looloo tax nit ñi daan il faut que ñu wàññi programme bi mais wàññi ko mën nañ ko wàññi mais du ne nañ koy wàññee Ah, ba tey njàng meek njàngale mi cours yi daal di dooraat ndànk-ndànk ca lycée Blaise Diagne cours de vacances yi nga xam ne dañ coo bëgg a waajal élèves yi eh, ci ubbi tekk l'école bu eh, mag bi nga xam ne soreetul waaye tam du matière yëpp la ñuy daal di nag amal ah, li ëpp daal ci matière yi lañuy ñuy daal di nag eh, def rawatina yi gën a rek am doole ginnaaw ba ñu toogee diir gu yàgg te jànguñu yi leen ndongo lu ëpp si ñoom dakkal seeni vacances ñu nekk ci ay classes intermédiaires wala classe terminale. ñu tàmbaliwaat ci yoonu école gi ba nekk sax ci jamono yi ci cours de vacance yi mbébét bi mooy waajal année scolaire bi ñu dëgmal. xaw na métti tuuti ndax dañoo woon fàtte li ñu jotoon jàng mais ak professeurs yi ñu ngi essayé di reprendre li nga xam ne maanaam fàtte woon nañ ko bëriwuñ de mais ñun jot nañ sacrifier quelques semaines yu des pour mën a fàttaliku tuuti balaa ñuy commencer suñu programme ñu ngi def math PC ak SVT. lépp pour préparer bac bi ñu ngi def histoire ñu ngi def français ñu ngi def philo ñu ngi def anglais. ab organisation la ñu teg noonee ca CEM ak ca lycée Blaise Diagne waaye du lépp ci matière yi la ñu nekk di jàngaat bu ñu sukkandikoo ci mosier Diagne du surveillant général bi. daanaka matière yi ñuy wax matière littéraire ak matière scientifique yëpp dañ leen a boole donc dañ boole matière yi nga xam ne ñoo gën a yaatu élèves yi moom lañ gën a bëgg daanaka te ci la ñu ay jafe-jafe ñu tànn matière yooyu ngir jox leen ci ay cours te loolu tamit dañ leen solo ndaxte xam nga toog nañ lu yàgg jànguñu bëriwul mooy comme euh, deuxième langue nga xam ni eh, jàngalekat yi dañu néew sax ndox pour nga am ku ñëw day xaw a jafe muy allemand di russe wala portugais. daanaka mat na juróom benn ci ay weer bi ñu banqué seen ay yoxo yi leen dongo ñoo tàmbaliwaat di jàng ngir mën a waajal bu baax a baax année scolaire deux mille vingt deux mille vingt et un jeexale ko ak mouvance présidentielle bi parti nguur yi nga xam ne nag ci jafe-jafe la ñu nekk ci foofu ca bët euh, saalum réew mi ak responsable politique bu APR yi daal di nag yëkkati kàddu jëme ko ci naataangoom leader yu benn euh, bokk yaakaar moom mi daal di nag gis ni ci piège yu euh, seen naataango yu Pastef dañ ca daal di nag daanu bu baax a baax docteur Georges Massali di daldi di nag artu ne na faw ñu daal di nag defarwaat foofu ca diwaanu Ziguinchor Niass Ndeye kilifa politique nekk président Macky Sall nekk fii ci diwaanu Ziguinchor seen doxalinu politique jamono yi dara baaxu ci li ni mel ki nga xamante ni moom mooy responsable politique bu bokk ci APR Georges Massali daal di yëkkati ak ginnaaw bu muy ŋàññ ñi nga xamante ni ñooy responsable politique yu farek président Macky Sall fii ci diwaan bi ginnaaw bu mu janook taskatu xibaar yi ci mardi bi ci ngoon responsable apériste bi nee na mu ngi tiire sonnette d'alarme jàpp ni ñi nga xamante ni ñooy responsable Benno yu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor seen liggéey jamono yi dara baaxul au lieu que ñuy ŋàññi kii di Ousmane Sonko euh, di ko euh, tam dëmm li ñu waroon def mooy changer doxalin Georges Mansali responsable APRS fii ci diwaanu Ziguinchor. maa xam ne nii xëy na euh, suñu kilifa yi. jàngatuñu la moo tax ñu ñàkk élection présidentielle. maa xam ne su ma continuer di seetaan yóbbul kër kanam man mu ma nekk si kër di gis. jàngoro buy dugg si kër may toog di seetaan loolu moo waral tey mu jóg xamal ni xamal responsable yi yoon bu ngeen jël du yoon bu baax delloo si leen seen xel parce que kooku ngeen di wax noonu suñu mbokk la ñoo bokk réew mi ñoo bokk ko ñu ko voté suñuy frère la ñu suñu yaay lañu suñuy doom la ñoom ñoo ko votel donc bu ñu koy attaqué indirectement ñu ngi attaqué ñooñu donc nañu xoolaat seen bopp waan ñeneen mën nañ ko attaqué ba mu des ñun ñun war ñu ko attaqué. responsable politique bi jàpp ni tey jii ñi nga xamante ni ñoo fare président Macky Sall yore ay ndomboy tànk war nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax gën a saytu li nga xamante ni moom moo waral ay jël yu ñu jot am fii ci diwaan bi ci élection yële ñu génn xoolaat seen bopp yëkkati na ko. ñun lu ñu war a def mooy dem déglu. ñu ko votel parce que ñu ko dëgg suñu mbokk lañ suñu frère lañ war nañ dem seen kër waxtaan ak ñoom xamal leen moo tax ngeen voté ba pare changer stratégie changer communication ni ñuy waxee ak population dem euh, population yi di leen di wax dëgg bañ a naxante ak population yi lépp lu ñu war a ñu def ko lu ñu mënul nañu ne population mënuñu ko ñu bañ a dugg si lu nga xam ne ëllëg def ñuy lor Macky Sall mérite lu ko nekk di dal ci Benno Bokk Yaakaar suñu moyul dina indi désordre yëkkatiwaat pënd bi ci biir mouvance présidentielle fii ci diwaanu Ziguinchor Ziguinchor Ignace Dey Sud FM Sud FM ganu bés bi. professeur Moussa Diaw mooy dellu si waat ca situation ba ca Guinée ak responsabilité mu ca daal di situé njàngat lekk El Hadj Malick Ndiaye. professeur Moussa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow nag sax man dafa maa toll jëm ci wàllu relations internationales ngay tamit jàngale lu jëm ci wàllu science po ci UGB professeur gis nañ fi mu toll nii kat Guinée dafa am ay ñaxtu yu jóg opposition bi oote nañ manifester ci contexte boo xam ne élection yi génn waaye Alpha Condé moom moo gagné naka nga jàng see situation bi am présentement à Conakry. situation bi eh, eh, beetul kenn beetul kenn parce que Alpha Condé gis nañu nu mu nu mu taxawee. dafa dafa bëggul woon dem bëggul bëggul quitter pouvoir bi bëggu fi jógee loolu nag problème la moo tax mu modifier constitution bi pour pour toog ni day organiser élection yi euh, daal di créer institution nommé ñu nga xam ne ñoo yore ñoo yore processus électoral bi euh, situation bi si Guinée yi wote nañu mais dafa wane ni ni crise am na crise bu mag mooy am ci Guinée su fekkee Alpha Condé delluwul gannaaw parce que lii nii mu agiré rek logique la logique bi mooy moom moo yore moyens yi mo moyen de moyen de répression moom moom moo yore moo di moo contrôler processus bi et puis résultat bu ko neex lay génne loolu nag problème la loolu problème si si si si transition démocratique yu am yi en Afrique parce que du ñu reconnaître am benn amul benn consensus si si processus électoral bi amul benn consensus pour respecter ça dañu joxe ay ay gage ne résultat bu génn daañu ko respecter te élection yi daañu ko daañu ko dérouler daañu ko dérouler dans de bonnes conditions c'est-à-dire mu leer ni ñu koy doxalee et puis résultat yi ñuy génn yi mooy résultat yi nga xam ne moo jóge ci urne yi waaye du résultat yi ñuy falsifier mais gis nañu nii nag Alpha Condé euh, ma ngi dox ma ngi ma ngi ci beneen logique te nu mu fermé d'ailleurs frontière ak Sénégal wane ne ni moom nanguwul du nangu résultat yi génn ci urne yi te lii crise lay indi crise bu mag lay indi te crise yooyu moo amoon Côte d'Ivoire ci affaire xëccoo électo euh, élection d'ailleurs la plupart ci pays africains yi euh, xeex crise su amee raison yi ci bare source bi politique lay doon élection yi ñu contesté ak situation euh, rapport de force entre candidats yi nga xam ne ñooy xëccoo élection yi loolu moo am Guinée situation boobu nag doy na waar te suñ ko waxul ah dina dina dina indi jafe-jafe yi ci surtout population yi ñoom ñooy souffrir ñoom ñooy souffrir ci situation bi te crise bi crise bu métti lay doon suñ ci waxul léegi jog ci euh, mën a jéem ko saafara euh, euh, ma yaakaar ne nag kooku défi la ba Afrique war a relever défi la d'ailleurs bu bu organisation régionale comme CEDEAO wala Union africaine wala wala wala war a relever mais nag loolu mu ngi dépendre ci seen seen capacité ak moyen ay ñoman euh, utiliser pour mën a def pression ci Alpha Condé mais yaakaar ni lool pour def ci moom pression période bi mu nekk niruwul ku nga xam ni euh, dina nangu euh, résultat yu nga xam ni jóge na ci urne yi. au delà Alpha Condé est ce que ku nekk amul partition boo xam war ko jouer muy opposition société civile pour jàmm del si am am foofu ca Guinée. waaw waaw léegi man ni man loolu bon euh, ma ngi dépendre ci euh, ci ci situation contexte bi euh, est-ce que marge de manœuvre am na fa société de dëgërul noonu Guinée te ma yaakaar ni amul déjà nu ñu gouvernement bi nu mu taxawee Euh, gis nañu nu euh, gis nañu nu Céline euh, Diallo nuñ ko nuñ ko nuñ nuñ ko séquestré séquestration dëgg la parce que dafa barricadé wu bàyyi ñu ko mu ñu génn loolu nag du situation bu nga xam ni dana permettre mu am négociation entre parti ñaari parti pour jéem a trouver solution ci situation bi loolu nag dafa war il faut que ñu waxtaan il faut que ñu wax te ma yaakaar ni réewu Afrique yi surtout voisins yi war nañ ci wax. waaye ñëpp ñu ngi toog di seetaan euh, situation bu nga xam ni euh, du Guinée rek moo moo moo ko mën a jànkontol yeneen réew yi aussi parce que ñoom itam nu ñu doxalee ci voie boobu lu ñu jëm te léegi nag war nañ ci wax euh, réew ci mu nga xam ne ay la ñu war nañu wax ci situation bi pour que calme mën a ñëw pour que négociation mën a am soo ko ñu waxtaan bay trouver issue ba nga xam ne dana permettre calme dellu si ci ci ci ci période bi ñu nekk. mais gis nañ sax ne professeur élection yi sax daanaka CEDEAO wane na élection yi jaar yoon la lépp leer na. institution yooyu lan mooy nekk seen war a nekk seen taxaw ci situation yu mel nii. waaw institution yooyu mënuñu mënuñu def la dul du ñu observer élection yi suñu observer élection yi. Euh, xool nagam amul ay incident même su fekkee am na ay incident mais xam ne du modifié du modifié wu euh, élection yi lu bare donc mais ñoom loolu mooy seen rôle observer rek mooy seen rôle mais amuñu benn moyen di contrôler euh, déroulement wu dépouillage bi ak résultat yi ak proclamation résultat yi amuñu ko euh, loolu nag ñoom dañu observer nii rek généralement dañu wax ne élection yi euh, jaadu na nuñ ko defaree mais xamuñu après résultat yi nan lañ koy euh, nan lañ koy doxalee nan lañ koy génnee nan ñu def seen dépouillement et puis am na mën nañu falsifier résultat yi yooyu yëpp mën nañ ko def procès-verbaux yi mën nañ ko def loolu nag organisation yooyu amuñu pouvoir boobu di contrôler loolu mooy seen problème loolu mooy problème souvent généralement su fekkee ni élection mu ngi jaar yoon Euh, ci réew réew Afrique rek mooy am ay euh, observateur yeneen yi réew yi nga xam ne réew yu stable la amul observateur parce que day am consensus réew mu nga xam ne ñu ngay organiser élection te amul consensus fii rek lay mujjee fii lay mujjee même organisation su suñu teewee suñu leen bàyyi ñëw amuñu benn possibilité di contrôler processus bi du début à la fin donc euh, donc ñoom dañu observer rek ci jour élection yi jeex na def seen rapport li ci des nag Euh, nguur gi moo moo mooy joxe résultat parce que processus bi euh, majorité moo euh, pouvoir bi moo koy moo koy organiser te pouvoir bi nu mu nu mu doxalee du nangu résultat yi nekk défavorable pour moom suñu gisee réew yëpp léegi nag dañuy seet comme consensus amul bu ñu organiser élection yi mo ñu bay def ay ay ay organisation yu mu xam ni instruments yu nga xam ni ñoom ñooy gérer élection yi résultat yi d' accord ci ñu nommé ci institution muy CENI wala yeneen organisation ou conseil constitutionnel ñu ci bare majorité moo leen di nommé Alpha Condé moo leen di nommé te ñooñu xam nañu ni suñu joxee résultat duñu joxe ay résultat défavorable kooku xam nañ ko léegi nag situation bi ñu nekk situation de crise la tension bu rey la te suñ ci jogul ah euh, situation bu bu amoon Côte d'Ivoire mooy ñëwaat guerre civile ki yooyu te loolu war nañ ko moytu ci Afrique bi réewu voisin yi war nañ ci wax Euh, union union union africaine moom itam amoon na ay observateur mais ñooñu yëpp amuñu amuñu solo yooyu institution yooyu yëpp euh, état yi lañu fi nekkal nekkuñu fi population yi ne duñu amuñu benn pouvoir de contrôler processus bi euh, loolu du seen rôle waaye nag loolu nag situation bu bu doy waar la te réew africain ñu ngi koy jànkontool te parce que loolu ci leader yi la jógee mi ngi jóge ci leader yi président yi ci nekk yi su ñu respecté constitution seen mandat su jeexee ñu gëm ko yokk wala ñu jaar ci ay euh, ay conseil constitutionnel nga xam ni kooku euh, ñoom lañ fa nekkal euh, lu ñu lu ñu fa dugal ñu ñu valider ko loolu nag problème la réewu Afrique da ngay gis lu mel noonu nga xam ne élection toujours tension lay doon yu ci bari ay crise lay indi de bloquer encore réew yi di di freiner seen développement économique et social loolu nag problème bu rëy la na ñu ci xalaat Afrique war nañ ci xalaataat ci réew yu mag yi dimbali leen ci ñu mën a organiser ay yu nga xam ne ñëpp daañ ko reconnaître résultat yi ñu bañ indi xëccoo ñu bañ indi di ko falsifier wala di di ci def yeneen jur ñaar nga xam ne day indi ay jafe-jafe seen réew professeur Moussa Diagne ngi la sant gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm. jaajafal ko moom mbokk mi waxtu yi dab nañu 18h euh, kii di Marie Rosalie Ndiaye dina ñëw ci xibaar yi daal di koy yaatal kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Assane Thioune moom lañu ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën a fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.